di nuyu tey siyaar sëriñ Muntaxa mbakke sëriñ Touba di ñaan mu yàgg fi te di nuyu tey ziar sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke sunub sëriñ di ñaan mu yàgg fi te di nuyu waa sëriñ saalim yëpp di dellu siwaat di am mbégte di woote ci gàmmo gu nu amal gàmmoog googu nga xam ni sunu sanga ba sunu yaakaar tey ëllëg sëriñ Béthio ci ndigalul sëriñ Saliou moom la daan woote gàmm googu moo nu tax a yëkkatiwaat kàddu bëgg nu yeesalaat loolu yi ndigalam loolu yi nga xam ni ñu dey sunu dund ci kaw suuf mooy lam nu daan digal nu di ca saa su moo tax ma jàpp tey ni naa ci woote ñëpp xam nañ ni sax gàmmo gi moom naka jekk boobaak léegi dañ koy amal waaye di fàttali rek ni gàmmo googu danañ ko amal ca na anam ba dañ ko daan amale di ñaan bokki jullit yëpp ñu teew ci muy guddi goo xam ni sunu xéewal la sunu njariña guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom lañuy woote kon nag maa ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuma kenn nag bépp jullit fu waay mën a ne maa ngi la ci woo woote bi it ko indi bokk na ci xel xelkom ndax sunu sang ba Serigne Cheikh ginnaaw bim ma wooloo ci buum gi yëgal ma ko wan ma ni kat. jàpp nañu bisub ngóob mi bu ñu gàmmoo ba samedi ba ko jëkk kon ndigal wàccati na tawféex amati na ndimbal amati na ndax xelkom kat mooy xelkom ak Serigne xel kom mooy sunu ndimbal moom la Serigne Béthio daan woote kon moom laa leen di woo ginnaaw bi ñu ko Serigne bi digalee ren nag daa am lu ci particulier lu mu dajeel muy ci biir ndigal loolu mu ñu jox ñu war a jëm xelkom dama joxaat leneen ndigal ndigal li mu ma joxaat mooy yeesalaat barabu barabu Matlaboul Fawzeyni Matlaboul Fawzeyni nag buñ ko tuddee mooy Touba foofee la woon taarix ba fa la yëf yi amee woon foofa nag buñ ñu fa wooyee dinu fa defloo dara mooy rek bëggati nañ ñëw dimbali moo tax sëriñ Cheikh ñu ngi ñaan mu yàgg fi te moom day Mbàkke sant naa ko cant goo xam ni cant cant gi day wóor na ma ni sama làmmiñ mënu ko tudd ndax li may yëg ci sama xol ginnaaw bim nu uufee boobaak léegi di nu dimbali di nu jox ay ndigal di ñu tàbbiloo ci daara yi li ma ci gën a neex mooy la ñu sëñ Saaliwu daan digal rek la ñuy digal mooy lañu ñu sëñ Béthio tegoon rek mooy tool yi mooy daara yi mooy liggéey bi nga xam ni mooy liggéeyub yàlla di liggéeyub sëriñ Touba kon nag tawféex la ci ñun ñu amati ndimbal sëriñ Cheikh mu tedd bi wooñu di ñu sant dara ci biir kër sëriñ Saaliw loola nag yéene naa ko du cantaakoon yi rek cantaakoon yi rek yónnee naa ko bépp jullit rawatina suñu mbokki murit yi jàpp naa jàpp naa ko nag bu ñu gàmmoo ba noppi la liggéey boobu di door mooy bu ñu demee xel xelkom bu ñu fa jógee dañuy tàbbi Matlaboul Fawzeyni mooy dañuy tàbbi biir kër Serigne Saliou ngir matale liggéey boobu dinaa ko waajal ndax liggéey ba day laaj ñu sëkk ko sëkk nag buñ ko dee wax day laaj mbooloo kon maa ngi woo bépp cantaakon ak fu mu mën a ne liggéey boobu muy nga xam ni ndimbal suñu ndimbal képp la na na nañ ko fanoo te waaj ko dem xel koom jóge fa liggéey ko danañu waajal suuf si danañu waajal jumtukaay yi nga xam ni moom lay àndal bu ko defee ñu mën a def liggéey boobu ni ko sëriñ bi bëgge a ngi ñaan ñu àgg ci ak jàmm looloo doon woote bi loolu laa bëggoon nu xam ko xam ni sunu njariñ la sunu ndimbal la liggéey day fu ne la neexee Sëriñ Tuubaa day luñ la ci jëfloo man nga koo sante yàlla rawatina nag ñu liggéey loola ci biir kër Sëriñ Sall ah gaa ñi wax ji foofu la féete waaw ca dañ ñoo tànnal ñun sunu kilifa daf noo daf noo dimbali dinu liggéeyloo ci sëriñ bi tàmbalee ci sëriñ bi yem ci sëriñ bi loolu nag tawféex mënu koo wees moo tax maa ngi woo jëwriñ ñëpp jëwriñ universel jëwriñu daara cantaakon ak bépp taalu taalibe murit boo xam ne liggéeyal sëriñ Touba yitteel na la maa ngi la ciy woo ci liggéey boobu maa ngi santaat nag sunu sang ba moom sëñ Béthio ndax liggéey bi yëpp mooma waaw bu ñu demee ba tey ñu am ndimbal lu toll ni di delluwaat kër sëriñ Saliou ci ab liggéey ah, walaay walaay mënuñ koo mënuñoo mënuñ koo fàtte ba tax nañ maa ngi ñaan xéewal yañ fay am yëpp lépp fekk ko fa mu ne ndax moom mooy borom xéewal yi da dañoo da borom su dañoo deful nag lu ëpp ñaan suñu borom moo tax ñuy ñaan loole fekk ko fa waaye moom day wóor na ma ni ma nga dëkkaaleeg sangam ba waaw maa ngi santaat bu baax nag di leen jaajëfal ci liggéey yi fi weesu di leen sant ci màggal gi ndax màggalu ren sant naa ci sëriñ saaliwu lool ndax ni mu deme ndax jàppoon naa ne nag yëf yi moom mu ngi dox sax nag waaye jàppoon naa ne nag du àgg foofu waaw moo tax ne ci liggéey bi rek mooy li am solo boo ci nekkee rek sëriñ bi yombalal la lépp ren nag gis ngeen ni mu demee waaye lépp nag yéen a yéen bokki taalibe yi wax dëgg yàlla gis naa taxawaay bi pas-pas boobu rek la ñu war a am ci liggéey bi lépp loo xam ne sëriñ bi bàyyee woon nañu ko te muy ndigalam nañu ci ne rawatina gën a fonkaat xasaayit yi bokki taalibe maa ngi leen koy fàttali xasaay yi day bu ma sañoon ñu jëlaat ko nag beneen jëlin mooy necc te xam ne liggéey bi weesuwul loolu sëriñ taxaa bi nga xam ne mooy sëriñ Tuubaa wan nañu yoon wi wan nañu yoon wi leer na nañ nañ leen gën a góorgóorlu te takkaayu te gën a fonk xasaay ji ñu ngi ci liggéeyal sëriñ bi ci lu wër sëriñ bi dimbali nanu ba lu mu yëkkati dugal ñu ca loola nag buñ ko booleeg nag fonk xasaay ji rek wax ji day daal di mat maa ngi ci woo kenn ku ci ne na ci na ci na ci na ci gën a farluwaat te gën cee am pas-pas te gën cee am pëstéef toggi daara yi it jëlaat nañ ko fii may waxee ak yéen Touba ñu ngay waajal ngir suba ñu mën a def togg yi kon nañu jëlaat nañu fonkaat liggéey yooyu nga xam ni moo jëm ci daara yi nañ ko fonk joxaat naa leen ci digal lu yees peq mooy nañu gën a fonkaat liggéeyu daara yi waaw waaw nañuy faral di daje di ko waxtaane loolu daal moo doonoon woote bi maa ngi leen di sant te di leen gërëm wasalaam hada